الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين نونجي ديل سيتي لاجو سخنا سي خامني موم ميغي نيك بيتم ريو laajam mooy moom dafay faral di ñàkk bànneex buy sëy du yëg benn bànneex ci sëyam digganteem ak borom këram mu ci doon laaj nag lan lañ ko ci jàppale ci wàllu faj ak ci wàllu diine loolu lu bari la ci jamono bi ñu toll mën nañ ni sax xewit la boo xam ni bari na lool tasaaroo na lool ci biir jigéen ñi yi koy sabab it bari na dina dem ba ci juróom ñaar ba juróom benn mbir bi ci jiitu mooy soxna si su fekkee dafa am siti bu wow loolu dana ko def mbooleem ku loolu di dal ci jigéen dinay dal sax góor loolu ku dal ci jigéen na yëg ni ci siti lay bàyyikoo muy siti bu wow benn ñaareel bi soccet dina ko sabab maanaam jigéen joo xam dafa amee soccet wala dafa bëri soccet soccet yooyu nga xamante ne day nekk ci ruhumam yooyu soccet mooy tax ndoxam moom buy ñëw moom jigéen di sëy nga xam ni ndoxam boobu war participer di jox bànneex ndox boobu dafay raar lan moo tax warajar yi mu war a jaar par pour ñëw du am su ko defee ndaw si dafay sëy borom këram di sëy mais du am répondre Madame. du répondre réponse bu doy ñettel bi likoy def moy infection vaginale Madame, ndaw si amé lu melni ay góom wala yu muy infection Loldenokadef. dana ko def bokku na ci likoy def moy ndox ku ki n'eu ndox nga buy sey ndoxam mi wara ñew Toyel kanamam ba tax mu yëg banex ndox bobu du ñew ñettel bi muy bari fendi kanamam di bari fendi parce que wul manuyu Benen bi bokku na ci bi gëna gën a bari ci jigéen ñu bari mooy xariinu su xariinu su moom la ñuy wax ci olof faru rab seytaane bi muy àndal moom jigéen ji moom mooy faral di sëy ak moom su sëyeeg moom nag da koy bàyyee maniyom moom seytaane boobu maniyom boobu nga xamante ne moom la koy bàyyee nag dana sabab yaramu ndaw si di tàng lool lool lool léeg bu jëkkëram tëddeeg moom du ko ñemee laal lan moo tax parce que tàngoor wi mu koy jox mooy tax du ko ñeme yaram bi day mel ni luy boucher tàngoor ci biir day yëg tàngat moom ndaw si dina bëri lu muy naan dana soxla ndox ci guddi gi dana soxla di sangu lu bari parce que yaram bi mooy tàng loolu seytaane bu muy àndal moom moo koy def beneen bi bokk na ci metitu bas-ventre loolu nga xamante ni mooy daje yépp nag benn bu ci nekk mën naa sabab ndaw si du yëg bànneex ci sëy te jigéen bu yëgul bànneex ci sëy du bëgg sëy su bëggul sëy jafe-jafe ñëw na mook borom këram ndax borom këram bëgg sëy moom bu gut sëy borom këram mën naa jàpp ni kii dafa bañ sëy fekk dafa am lu ànd ak moom imma benn ci feebar yee feebar yële nag benn bu ci nekk hôpital dinañ koy traité comme côté médecine traditionnelle it dana koy traité ñu ñëw ci li koy traité bokk na ci bu fekkee ni ndaw si dafay fendi maanaam kanamam day wow su dee sëy du génne ndox walla mu amee soccet soccet yi di bàyyi liquide walla mu néew maniyu yii bu mu ci doon bu dee moom la seetlu na ut vinaigre kubéeru butéelu vinaigre bi bu dee comme ñun bi ñu yore fii ci Sénégal kubéeru butéel bi moom lay sotti vinaigre ba mu fees mu def ko ci xaaju litre ndox bu ko defee ci litre capsule bi capsule bi nga xamante ne moom mooy kubéeru bi lay vinaigre bi mu boole ko xaaju litre ndox loolu moom lay raxasoo moom soxna si su ko defee saa toilette ba raxasu ba pare loolu da koy wis ci kanamam raxas ko raxas kanamam ba mu set chaque fois su yàggee dana rey micro yi ci même perte blanche mu doon am loolu dana ko dindi ñaareel bi mu dem uti reenu ngolloñ wala xas bi reenu ngolloñ wala xas bi ut farxañ xas bi wala reen bi gaaw bi moom reen lay doon su amee reenu ngolloñ reenu farxañ reenu gaw baax na su amee xasu ngolloñ xasu farxañ reenu gaw baax na wala ngolloñ ak farxañ bu amee bii xas am bii reer mais gaw bi leen lay doon yooyu lay boole ci trois litres ndox mu togg ko pendant vingt litres vingt minutes su ko toggee pendant vingt minutes di ci xooju suba ak ngoon li mu togg ci trois litres yi su xëyee da koy tàngal bàyyi ko ba mu nugg mu ñeme ko mu toog ci moom jigéen bu ci toogee nag day jël ci ndox mi di ko raxas ci kanamam parce que day kanamam ñeme na ko day jël ndox mi di ko wis ci kanamam di ko raxas loolu pendant cinq sept minutes la koy def pendant cinq sept minutes yooyu su ko defee ba pare mu jël ndox mu mu denc ko ba ngoon mu defaat ko su ko defee deux jours day tuur ndox boobu utiwaat même reen yi continuer noonu loolu da koy def pendant jour su ko defee loolu dana deñ lii nag mooy faju biti bi faju bi nga xamante ne rek léegi ci biir la jëm day ut reenu sulukum reenu saalaali xasu suuruur reenu xom-xom reenu dànq mu baxal leen ci ñeenti litre ndox di ko naan suba ak ngoon reenu sulukum reenu saalaali reenu xasu suuruur ak reenu xom-xom ak reenu dànq juróom yi ñoom lay boole togg ko ci ñeenti litre ndox di ko naan xaaju kaas après chaque repas su añee mu naan xaaju kaas su reeree mu naan xaaju kaas su ndékkee mu naan xaaju gaas amaa nag bu fekke li sabab ñak yek banex bi ci xariinam la joge seytaane walul lu demee noonu day jël ndoxu zamzam lay jël ndoxu zamzam su jëlé ndoxu zamzam bi mélanger ko ak benen ndox mu jàng ci fatiha jurom naar wala lu ko neex jàng ayatul kursi ëf ko ci ikhlas falaqi nasi wala lu mën ci alquran ndox mom mu di ko naan di ci sangu waye bu koy sangu du ko sangu ci toilette inshallah su defé lolu dana ci yek tan bu baakha a baax baax baax sinon mu dem ci ñi nga xamante ne spécialiste lañ ci wàllu faj boobu mu dem fajoo ko ñoom koy conseillé nag bu fekkee dem na hôpital ñoom dinañ koy traité waaye seeni traitement nag am na yoo xamante ni du neex a wax ndax dafay amee ay effets secondaires hada wa salla wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain loolu moom mooy tontu soxna si nga xam ni dafa doon laaj ni moom buy sëy du yëg benn bànneexu sëy kon loolu moom mooy tontam yàlla yàlla defal ñu jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit asalaamu aleykum rahmatullahi wa barakaatu. mbokk bi li muy laaj mooy ne oustaz dama doon foo ak sama soxna fekk moom dafa indisposé ñuy foo man nag moom pour bànneexu seytaane mën ma ñu far sëy dëggantaan te loolu wax dëgg yàlla nekkul rek benn yoon bii moom daal dafa mel ni saa bu tollee ci indisposé rek seytaane damay mën ba ñu sëy ngeen dimbale ñu wax ñu lan la ci islaam wax ak lan moom ma ci war fas yéene naa koo tuub te bëggatuma koo def tontu bi mooy li mu mujj wax lolu moy nako ko tuub te bañ ko defaat ndax jëf ju ñaaw la jëf ju bon la luñu tere la te ku ko def da ngay am bakkar kon warna ci mom mu jéggulu yàlla tuub ndax borom bi wax na ni wayasalunaka yasaluunaka an ilmaxid qul huwa fa'tazilu an nisaa fi lmaxid borom bi neena yonent bi dina ñëw laaj la ci jigen ju indisposé ndax jigen di indisposé ak lañ la tay laaj waaye ala kulli hal lu am dal yow yonent bi bu ñewé laaj la ne leen deretu mbërëg deretu indisposé boobu kat sobe la lor la kon bu jigéen de indisposé loolu di génn ci moom kon faatazilu nisaa na ngeen sori jigéen ñi fil maxiid ci jamono yi ngant muy jamono yi mbërëg faatazilu nisaa nag tekkiwul sori leen jigéen ñi bu leen bokk ak ñoom lal bu dul lu dul ci bi char sori leen moom mooy yaa Aïcha radiallahu anha nee na kenn ci ñun bu musee tollu ci ngantam day takku ba dëgër takku ba dëgër mooy bu doon sunu jamono bi damay wax ni jigéen ji mën naa sol lu mel ni jiin wala mu sol loo xam ni dafay dëgër ba temps bi nga xamante ni jëkkër ji dina nekk ci bug koo génne wala bug koo summi xel mi dellu ci ne kii day indisposé mu bàyyi ko mooy yaay sa li mu wax moom mooy kenn ci ñun ku doon indisposé day takku ba dëgër doog a séq ak yonente bi sallallahu li muy séq ak moom kon nit buy indisposé mën naa jonjoog soxnaam mën naa faw ak moom mën na séq ak moom lépp ba mu des sëy sëy rek moo mënta nekk waaye leneen li ci des lépp mën na nekk lépp lu tudd fa boo xamante ni bànneex lay jur seen diggante mën naa nekk mais sëy munta nekk lan moo tax qul huwa azan lor googu borom bi wax yemul ci sobe rek mais sobe la waaye lor la boo xam ni mën naa indil góor gi sëy ak jigéen jooju lor mën na ko koy indil te fajkat yi am na lu luñ ci wax kon loolu jëf bu ñaaw la léegi nag su fekkee ni jëf jooju am na ba pare nit ki sëy na ak soxnaam fekk muy indisposé su fekkee ci première heure bi nga xam ne soxna saa ngi indisposé masalan dafay doog a débuté indisposé par exemple am na benn fan wala ci première jour bi nit ki jote ci ak soxnaam sëy ak moom ci kaw deret boobu kooku li fuqaha yi wax mooy day saraxee diinaar diinaar nag dañuy xool lan mooy équivalence am ci CFA am na lenn fii ci borom xam-xam yi ñuy wax ni nit ki daal bu fekkee sëy nag soxnaam su génnee deux mille francs ba trois mille francs def ko kafaara saraxe ko loolu baax na am ñu ne déedéet moom li muy génne day romb trois mille de cinq mille jëm kaw lay génne kooku ci première jote bi la ci première bu indisposé mais bu démé ba ci indisposé bi bu ko trois jours le mu deuxième jour bi ba mu bay dugg troisième bi bu am am cinq jours la muy dugg bi am jours la muy dugg sixième bi bu kuy am sept la muy dugg bi jamono la gi ak fo am lay ba ci jëf jooju ndax jëf la boo xamante ni jëf bu doywaar la islaam da ko tere jigéen buy indisposé wala mu yore deret wasin góor gi na ko sori lu ne nag mën nañ ko séq mu des nag góor gi sensible am na góor goo xam ni dafa sensible lool mënta tee bànneexam su séqeeg soxnaam lu yàgg xelam ndof dana ko dikkal ba mu àgg fa mu war a àgg kooku dañ koy wax kat jub mbon moo gën àgg ci mbon fekkee bu defee loolu dana ko yóbbu ca lee kon bu soxna ci indisposé nako sori ci lal su boba loolu lañ koy dénk yalla ñu yàlla jéggel jéggel ko yalla na yàlla delloosi ni bu baax amna sax wax ju mu ci tégon néna ñu bëri ci ay xaritam dañ ko doon waxtané te xamna ni ñu ngi koy def kon lan la leen di conseil dima leen di conseil mom moy ñu déglu li rek inshallah suñu ko dégloo ñu xamni lu seen diine haramal la seen diine da ko tere sa diine lu mu tere nak daara war la ko jaral hadha wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salamu alaykum